sant ci sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mourides gannaaw bi mu fabee loxoom def ko ci jiba yëkkati deux cent millions jàppale ko Sénégal sëñ Abdoulaye Ka maire de Touba jël xalaat boobu moo conseil yi yëkkati ceeb boobu mu ànd ak sukkër ànd ak diw ñu war koo jëme ci nit ñi pour jàppale leen ko euh, kon tey dañu jàpp ne li nu gënoon jaaxal mooy registre unique bi nga xam ne bii mooy bourse familiale xam ngeen ne list boobu am na ñu ci bind seeni tur te dëkkuñu Touba nekkuñu fi am na ñu faatu am na ñoo xam ne ay kilifa lañu sax mais dañ cee bind seen bopp seeni jabar loolu nag ñu ni ñun député yi du ñu mas a taxaw di nangu ñooñu ñu fabaat ceeb bi jox leen ko kooku ñun dañ ciy opposé wu. ndax bu ñu leen joxe ceeb bi presque xaaju ceeb bi day jeex kon ñi amul ci bourse bi te yelloo ko xam ne fii plus de un million de personnes dëkk nañ fi li fi nekk ci ménage mënu bu ñu joxoon ñëpp du ñu xaajal ñu fab ñooñu ñuy jox xaalis ba pare fabaat leen ko ñeneen ñi nga xam ne dañoo toog ak i way laago ak i chauffeur ak i boroomi sare ak ñoo xam ne daara lañ yor ñu sànni leen foofu loolu moo waral mbir mi biñ ci jokkee ak ministre bi mu ne nañ ci waxtaan ak préfet préfet ñu waroon dem fekk ko bureau mais comme maire bi mooy dëkk bi nga xam ne bii moo gën a rëy ci département bi mooy Touba mu ñaan ñu ñu daje fii ñu élargir ko ci waa HCCT ak conseil économique social ak adjoint maire yi pour ñu mën a waxtaanee mbir mi li ci am solo mooy waxtaan wi préfet jiite na ko ci xel jiite na ko ci dal jiite na ko ci bëgg a réussir mission moo tax mu déglu nit ñëpp ñu proposé ko nag lu am solo gannaaw maire bi dafa fab lu toll noonu di ko séddale ni euh, kit gi mi ñuy def ñoom cinquante kilos ceeb lay doon euh, juróomi litre diw ak juróomi kilo sukkër li état jël moom dix la te ñu xam ne bu ñu jëlee dix cible yi ñu tuuti ñooy am coow li ni gër ñu ni li nga xam ne ñi ñu élire fii muy conseil municipal juboo nañ ci ba war koo def bu ñu tàmbalee ñoom joxe noonu bu état indee nañ ko corriger sant état ba pare ni ko ñun juboo nañu ci wàññi ko ndax état mooy maye te ñëpp ko yelloo fii pour mu gën a yaatu xam ne bu doon fukk la ñuy jox ñaar fukk la ñuy jox bu boobaa ndamu état la loolu préfet nee na dana ko jàllale wax ko ay kilifaam. mais it Abdoulaat Ka dañ koo sas mu yëgal ko sëñ Sidi mi nga xam ne mooy ji jëwriñu sëñ mon Muntaxa pour ni ko ñun ñii ay dongoom dëkk ci dëkk bi noonu lañu bëgg ñu séddale ko ndax sëñ Touba noonu lay séddalee même bu doon ñooñu état wax ñoo ko yelloo rek lekk wacc sa morom warul ndax dañ leen a bind ci u kayit rek mais am na kër gu nekk seen wet gu ñu bindul te tanewuñ leen kon loolu mooy waxtaan wi juboo nañ ci commission yi ñu war a def dana wàcc ci quartier yi dana dem ci village yi liñ ci proposé yi dañ ni ceeb bi bu demee ci village yi muy village périphérique yi Touba nañ ko wàccee ca penc ma ñëpp fekkee ba pare commission bi koy seddalee du doon chef de village rek dem mën naa nekk président mais dafa war a mat lu bon bon juróom-ñaari nit yoo xam nañ ni seen probité morale ñu jub lañu muy imam muy jeune association jeune bu dee handicapé nekk na ca dëkk ba ñu séddale ko defe nañ ne nag dëkk yi wër Touba du am jafe-jafe mais biir Touba la ñuy alertu li ci des ñu wax ko mooy ñun daañ ci teg sunu bët bu nu gisee benn chef de village wala kuñ jox ceeb bi nga jaay ci saakub ceeb wala nga génnee ko ñun jury d'honneur la ñuy wut porter la plainte toppante koog yow ba fa mbaxana di benn